la même chose euh, alors sur le cas Ousmane Sonko euh, est-ce que la justice on, on s'acharne sur les lieutenants euh, mais sur le patron dafa mel ni la justice manque de courage de courage pour aller jusqu'au bout on est devant une situation judiciaire inédite Euh, man j'aimerais bien rencontrer le ministre de la Justice pour lui poser pour la question pour comprendre parce que déjà euh, c'est difficile à comprendre Euh, Ousmane Sonko dañ ne dañ ko jugé par contumace Ousmane Sonko nekk këram nekk à leur portée dans un premier temps dañu expliquer woon ne il faut ñu xaar ba décision de justice bi génn pour que ñu mën ko exécuter ñu publier ko defe naa pour que ñu mën ko exécuter euh, defe naa décision de justice bi publier nañ ko il y a longtemps il se passe rien Ousmane Sonko mi ngi def ay vidéo mi ngi def ay interview mi ngi def ay séance d'entraînement filmé jéem na investiture à waaw euh, jéem na sax def fi euh, <laughs> cérémonie d'investiture il se passe rien donc on aimerait bien moi j'aimerais bien comprendre parce qu'en fait du ma spécialiste de la justice peut-être j'ai fait des cours de <laughs> sur les principes généraux du droit mais je me pose des questions je veux savoir un peu qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer parce que tamit euh, loolu problème lay doon boo xam ne parce que euh, euh, bu la kenn nax et pendant euh, ce temps son domicile est barricadé. Ah, waaw mais affaire en fait pour man affaire Ousmane Sonko bi euh, nit ñi xalaatuñ ci bu baax mais buñ ci xalaatoon bu baax. dinañ gis ne rendez-vous la boo xam ne bu ko justice Sénégal manqué li muy juri ëllëg pour man mën na doon lu doy waar. c'est des un précédent dangereux mën na doon lu doy waar parce que tey on sait jamais son Sonko damay joxe benn exemple Ousmane Sonko mën na nekk président de la République du Sénégal en 2024 ça peut arriver donc admettons tey que usman Sonko nekk président de la République du Sénégal et que justice deful liggéeyam mu nekk président de la République du Sénégal Euh, am sama benn mbokk bu dëkk Touba wala bu dëkk Fuuta boo xam ne adversaire politique am la bu def dara justice convoqué ko mu bañ a ñëw ne dañ koo complot wax ay nitam wala ay mbokkam nañu barricade dëkkam léegi nan la ñuy def concrètement nan la def donc pour man ci côté boobu justice dafa war a def liggéeyam parce que bu justice deful liggéeyam ça va être un précédent dangereux parce que li mu mën a jur ëllëg pour man sénégalais duñ ko sax duñ ci sax xalaat bu bëri mais lu jar xalaat la parce que euh, buñ ko buñ ko buñ ko réglewul ëllëg ku taxaw fi ku ñu ku ñu jiiñ nga am mbooloo am mbokk am moyen yooyu défendre sa bopp da ngay barricade sa dëkk ne dañ laa complot te bu boobaa tamit buñ ko bëggee regle niñ ko nar regle dina ñaaw trop wala dina indi ay jafe-jafe yoo xam ne après pour ñu gérer ko ci réew mi dina dina dina doon lu doy waar. parce que mbir mi dafa mel ni lambigol Ousmane Sonko dit que il est toujours éligible ah deuxièmement euh, bien que restreindre nañ ay liberteem moom mu ngi expliquer ne contumace bi fii ba cinq ans heure bu ko heure bu ñu yëngalee bu ko neexee moom mu def en sorte que toutes les charges tombent te ñoom aussi de l'autre côté euh, xam nañu loolu. jàpp nañ ne xëy na bu ñu ñëwee arrêté ko dina ak acquiescer mbaa mu rejeté et qu'il faut reprendre la procédure et peut-être que d'ici à la présidentielle bëgguñ ko fi may une tribune judiciaire donc mu mel ni euh, politique dafa dugg. Euh, ah, dans la dans la brèche de la justice encore une loolu laay wax c'est-à-dire que euh, dëkk boo koy gérer da nga koy gérer selon des principes. boo ko géré wul selon des principes ko selon des calculs da ngay dem ba mu yàgg yow sa bopp nga réer ci say biir calcul parce que tey buñ nee duñu jàpp Ousmane Sonko parce que buñ ko jàppee euh, contumace bi day daanu bu ñu ko jàppee il faut reprendre la procédure ñu ne léegi comme bëgguñu reprendre la procédure parce que bu ñu reprendre procédure bi moom il devient éligible il pourra se présenter aux élections nañ ko bàyyi noonu mais il faut pas parce que encore une fois li ñu yore ñoom dañ leen ko dénk réew mii Sénégalais yi ñoo ko moom amul kenn ci Sénégalais yoo koo xam ne jouru élection yi da ngay am dix cartes électeurs cent cartes électeurs wala mille cartes électeurs donc Ousmane Sonko bu Sénégalais yi décidé ne dañ ko bëgg a def seen président loolu yoonu à la limite yoonu kenn nekku ci waxoon naa ko fi dinaa ko répété Sénégalais bu leen neexee comme ni senateur boobu waxoon bu leen neexee ñu jël fas def ko président. loolu c'est la souveraineté du peuple sénégalais donc mu nekk fii ci ay calcul yoo xam ne ëllëg mën na jural Sénégal musiba yoo xam ne kenn du ko mën gérer juste parce que danga ragal benn adversaire politique pour man Sénégal ak sénégalais yi surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite Sénégal moment bi ñu dénk leen ko seen xel seen xam-xam seen xarañteef ak seen ñeme war na weesu foofu.